balaa ñuy dem sur les solutions ah. euh, est-ce que un gouvernement Macky Sall bi muy supporter loolu deux mille vingt deux deux mille vingt trois deux mille vingt quatre ñu génn ci cri euh, Covid bi dugg ci crise russo-ukrainienne euh, les hommes politiques quelle que soit la noblesse de leur discours ils ont toujours les yeux rivés sur le calendrier électoral est-ce que gouvernement un gouvernement mën na jël le risque Euh, de laisser les populations supporter la véracité des prix. Vous avez vu tout ce qui s'est passé l'année dernière avec la hausse de du prix de l'électricité mais gis nga pour man un gouvernement day am force d'explication man de damaa gëm mais mun a bu ñu bëggee jóg ci situation bi parce que situation bi ñu bi ñu Abdoulaye Wade bàyyi moom la ñu Macky Sall bàyyi cest dire que i n'y pas de changement parce que euh, ku ci nekk da ngay ñëw rek li may wax chaque fois rek et je donne def cours ak étudiants yi loolu laa ne exemple ma leen jox ma ma yóbbu sama doom ci dentiste bu déggee ki nekk ci biir di jooy mais daf ma naan papa na ñibbi mais boo bëggee boo ko toppee ci li ko neex bu guddee du nelaw mais donte yow sa xol day metti donte ça fait mal toogal nit dindi bëñ bi mu yuux foofu lu <laughs> muy yuuxu après bu demee tëdd nelaw gis nga bu ñu parce que xoolal li ñuy perte ci subvention 700 milliards 700 milliards yoo xam ni dañ koo lekk naan ko mu jeex nga mu nekk bor booy fay. mais 700 milliards dañu naan am na investissement yoo xamante ni boo ko defoon ci alimentation boobu sax mais dans deux ans trois ans d'autres alimentation sa production di nga am sécurité alimentaire ak dootoo dépendre ci produit ci ci ci marché interne parce que marché international bi dañoo ne ci àdduna boo xamante ni nit ñi dañuy yokk chaque année seeni besoin day yokk chaque année donc lépp loo produirul day cher chaque année day mel ni Dakar nu kër yi di yokkee prix yi mënoo ci dara parce que nit population buy yokk rek. besoin day yokk bu besoin di yokk ñi am tuuti dañu arbitrer kuy arbitrer nag sa intérêt ngay xool maintenant yow état yaay naa xam ne lii nii jëmul kër parce que plus tu subventionnes plus ngay rey sa sa secteur sa secteur privé national plus ngay dooleel secteur privé étranger bi moom muy gën am ay moyen pour gën a mën a contrôler sa marché mais day am moment boo xamante ne da ngay taxaw nit ñi takk seen biir man li ma gën mooy nit ñi il faut parfois serrer les ceintures parce que boo ko serré deux ans trois ans da ngay génn situation bi mais boo bëggee subventionné nag tu mets 700 milliards da nga koy perte xam nga FMI loolu la wax c'est-à-dire nga nga subventionné ko parce que nit ñi boo yokkee courant ñu wàññi seen consommation boo wàññee courant ñu parce que da ngay wàññi ndax da nga subventionné ñu yokk seen consommation léegi nag ban jeu ngay jeu li ci extraordinaire mooy dette bi ñu président Macky Sall bàyyi dem na bàyyi ñoog dette bi c'est la dette du Sénégal da koy fay par force maintenant dañuy nar a ñëw rek président bu ñëw leb ay lebam bàyyi keneen ñëw leb la quand est-ce que le le jeune le Sénégal va s'en sortir pour man il faut que moom ay choix. mais